Kan momitam Momitam, euh, quitte euh, à la dernière minute euh, coalition takualu pour des rejoindre exactement Pastef exactement investir si 24e position bu nationale bu Takku Wallu sa candidature à 10 jours des élections législatives parallèlement moom ki n'a pas comme que Adi nous si Fosso lool ci li nga xamné que APR mu nekkone aussi le secrétaire exécutif de Union pour le développement du Sénégal authentique Même itam li nga xamné que euh, ce jeudi 7 novembre mo dadi di mm, euh, réunir autour d'une session stratégique euh, sous la direction conjointe de monsieur Amadou Omar Gueye secrétaire général adjoint ak qui nga xam que maître Abdoulaye Diop président des sages de l'UDS SA ñu annoncé seen soutien contre li euh, wala kon ñu annoncé soutien euh, pour le parti mm, euh, PASTEF léegi élection législative du 17 novembre 2024 beaucoup de décisions moom mu daal qui koy jël que nga xam nekk moo Kanouti mm, donc na dem na exactement li que xam nekk moo Arfan PASTEF. alors moom musuma nangu loolu ni ma ko je pour Mame Boye Diao ak Doura Baldé.

damay wax ci Adji Mbergane Kanouté dama ne Adji Kanouté amul lu muy yakul PASTEF député yu taxawone ci voté la motion de censure pour Daniel ngour Ousmane Sonko ñom ñoy Sonko ça ne vous donne pas des leçons. peut ça ndax donne ay leçons en tout temps gis. ça ne vous donne pas des leçons. député yi d'accord d'accord ak pour mu une motion de censure pour ñu voter ko Daniel Ousmane soko ñom sommes Mbergane Kanouté la c'est ces mêmes députés ñom ñoo nek tay di daw di d'am Pastef dama c'est vrai que jommi amul heure mais jommi jommi c'est vrai que man dara ndaw jom parce que mon journaliste bu pànk la damay def ay recherche damay def ay investigation man dara lu ndaw mënumaa mal, mais transhumance yi ni surtout transhumance Adji Mbergane Kanouté bi daf à xawa jomal parce que la fermeté de cette dame là bu mu mon assemblée nationale di yekk lu melni ni xeme Ousmane Sonko surtout mu Ousmane Sonko. plateau jàkkaarloo toj nako merci loolu la bëgg ñew mm. plateau jàkkaarloo ne serait-ce que boo ko indee vaar sax vaar nga àndi ay vidéo bu ndaw da ngay ne non non bu ñu la nee tey c'est cette dame là qui a aujourd'hui quitté la vingt quatrième position de la liste nationale de Takku pour dem ci bannière Pastef non da ngay ne non non non. ay ay naxe euh, Sonko moo ko doy quand nag Sonko moo ko doy. noo non non Sonko doyu ko. xam lan moo tax mu transhumé dafa peser seen liste. mu xam ni ñoom dañu am dara. 24e moom non non xam nañu du nek dara du nek député 24e position mom mënul do nek député du nek député parce que taku wàllu buñu amé sa 10 député ñu jël taku wàllu fi ay pastef ngay dégg nga dégg peut-être euh, sam sam sa kaddu. Mm-hmm. touti mm-hmm. benen bi jàmm ak njëriñ. mais ken ken dégul dara. ñom ñom ñi si si ñi campagne à fond. mais lek leen ñu lek

il faut que nit fay am ñaawu ñor ci nit ils peuvent infiltrer ñu yónni comme ay infiltré ñu ñoo infiltrer wa PASTEF wa PASTEF war nañu bàyyi xel ci loolu bu baax ci les yi ñuy gis ni nga yaakaar ni que tey la am ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko est là pendant 10 ans d'opposition ñu saaga ko ces députés là ñoom ñooy taxaw di ko Adji yow yaa demoon suite boote yow yaa def lii yow yaa def lii Adji keroog bu ñuy voter pour simi malaanul kiiraay Ousmane Sonko ñoom aji mbergaan kanu te ñoo voté woon ba ñuy lever ba ñuy lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ñan ñoo voté woon. pour ñoom ñoo taxaw tey jii di naan dañoo am cofeel ci Ousmane Sonko. Euh, euh, Aminata Touré lu mu yàqul Ousmane Sonko. mais loolu laa wax ni. Aminata Touré lu mu yàqul Ousmane Sonko dafa am Mimi Touré. dama ne dama ne yaa ngi ma. dama a xam ni c'est la. ne musu dama ne man may may may may euh, santé ay louange quelqu'un d'un transhumant musuma ko ji musuma ko def. dama ne euh, musuma ko def. Euh, c'était une transhumance. dama né musuma ko musuma ko def dama né wa PASTEF def très attention parce que ils peuvent être infiltrés ay nit yu ngeen yaakaar ni que tey lañu ñu am tu ci Ousmane Sonko démb amuñu ko ci moom mais tey lañu am ci parce que ils sont senti le besoin xam nga nit buy dund état foofu laay jeexalee. Mm. xam nit buy am train de vie de l'état mm. tay nga ne ko sa perte nga nga nguur gi mu ñëwaat à la raison à l'état initial de départ te moom tamul dund boobu moom ay dund carte la am dund buur voiture luxueuse tout ça bon euh, payé par l'état du Sénégal électricité état du Sénégal fay ko courant mooy courant euh, ndox état du Sénégal fay ko téléphone état du Sénégal fay ko xamako am genre dund bobu imaginez aujourd'hui ñu ne ko tu sera pas député voilà ni ministre ni dara ni député ni ni ni ni directeur nga nara a nek un citoyen ordinaire comme tous les citoyens ngay joxé dépense pour ñu dem marché ngay fay woyofal ngay fay seen o imaginez dund bobu nga nara a ñëwaat ci dund bobu lolu waral transhumance yi ngeen di gis parce que dañoo yaakaar ni bu ñu transhumé dem Pastef wa Pastef après élection yi bu amé benen remaniement wala mu am yenen nomination dinañ leen nommer parce que dañoo gis ni que nommé nañu sen benn gaayen ben ben ben ben ben benn dignitaire. bu bu fa Samba voilà Samba. ah donc da nga japp ni. non mais lolu mo am dañoo tijjil voix dañoo tijjil Samba Samba Ndiaye boobu moo tijjil voix. ñu bëri ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu yaakaar ni que ñii dañuy gaawa fàtte. waa Pastef dañuy gaaw a fàtte. mais loolu la. ñu fàtte. moo tax gars yi daw fii dafa baax nag ñuy fàtte. dama ne fàtte xaju fi man loolu laa gëm fàtte xaju fi Samba Ndiaye boobu moo tijji ay bunt yu bëri ay transhumants yi fakk Benno Bokk Yaakaar di dem Pastef parce que dañoo jàpp ni waa Pastef no ils sont ak loo mënta moo loo leen mënta waxal ñoom dañuy gaaw a fàtte mën nañ laa may sax suba poste. nga taxaw tey saaga Ousmane Sonko suba mën nañu laa ubbi seen buntu nga ñëw président Fall la c'est pas grave comme nommé nañu ki Samba Ndiaye ñu ñëpp nañu daw dem fofu mota tax wa passef la nañu def très attention ci les transhumants là mën nañu leen yàqal lu bari parce que vous avez une vision jusqu'en 2050 vous êtes aujourd'hui au sein d'un mandat amago leen deux mandats au sein d'un mandat te transhumants yi bari nañu ñu leen doon saaga démb ñom ñoo leen di xalamal tey ñom ñoy transhumer tey dem fekk leen d'accord de comme disons que de la politique politique des xëy wasin d'accord mais aussi politique ñakul da ngay seppi mbalit bi sànni ko fële Ousmane Sonko yag na ko wax da ngay seppi mbalit bi sànni ko fële hmm. pourtant au sein de PASTEF PASTEF a gagné sans des transhumants

xoolaatal sa entourage parce que ñi nga nomee nii tey ñi ay conseiller ñoom conseiller wuñu la mais dañu lay yóbbu ci guuta ba pare daw bàyyi la. alors yàgg naa ko wax ci Macky Sall c'est important euh, ma ñaanati rek benn mbir parce que vu que temps moom euh, damay nekk di ñaan Ousmane Sonko vu que ni moom leen war a ñaan képp koo ko ñëw fekk si leen fexe ba réduction des comptes bi suñ ko démarré exact exactement nañ jiitoo si ñooñu ñooñu ñëw nekk si ginnaaw Pastef jaanoon naa ko démb si euh, démb ko Doura Baldé ñooñu tey tamit noonu laa ko ñaane tey si euh, alliance su ak ki nga xam ne ko moo di Aji Mergane Kanouté waaw mbokk yi mi ngi noonu exactement par rapport ak li nga xam ne moo di tolluwaay réew mi <laughs> réew maa jaxasoo Arfan sama réew mi jaxasoo na alors ñu daal di tëjee ak euh, liste bi exactement Pape moom itam.